asalaamaaleykum mbokk waa internet bi ñu suivre à travers partout dans le monde entier rawatina suñu chaîne bi ñu naan ko people comme ni ñu ko baaxoo di def nag tey ñëwaat nañu jël si fii Maris di suñu ñetteelu émission ak euh, Serigne Moustapha Dramé ni ñu koy baax di def ngeen koy fekk ci école Zeyna bi ah japonais euh, Serigne Moustapha ñu ngi lay ñu ngi delloo ziar bu baax di naan salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu waa àddina di nuyu waa Sénégal yëpp. di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla def ci réew mi jàmm ak ci bitiw réew di ñaan yàlla suñ mbokki moodu moodu yi nga xam ne ñu ngi ci biti réew mi kenn ku ne ci ñoom foo mën a ne sa sàkkuteef lenn la mooy am teraanga yàlla may ko ci barke jant bi solom ba nga mën a ñib ci say mbokk ndax métti na métti na métti na métti koo xam ne ay at nga bàyyi fi jabar bàyyi fi doom bàyyi fi wayjur ak ni mu mel ci doom ay at nga ne ci réew bëggoo ñibbi si mënoo ñibbi si kon ñu ñaan yàlla loolu métti na ñu ngi ñaan yàlla na ci barke yonent bi sallam yal na yàlla xet li moodu ñu ñibbi si mooy yu góor yu jigéen yëpp yal na ñibbi te boole ko am teraanga ju bëri lool ci barke yonent bi sallam ñeen ci biir réew mi tamit nag yàlla dafa leen sa sa côté sa yëngatu yéen yàlla def ci barke ci barke Euh, sama première question dama koy jagle lépp ci côté actualité nga waxoon fi wax yoo xamante ni ba léegi ñun ñu ngi ci teg suñu bët naam te ñu ngi doon buti xel yaa ngi yar yar yi nga waxoon ko ci CAN bi ñu door a débuté li nga fi waxoon ci CAN bi lépp gis nañ ko coupe bi ñëw fii ñu foog ne fa lay yem ñu del siwaat ci làmb ji aussi nga ñëwaat am wax yoo ci waxoon dina ñaaw jël bi dina gaaw te ni nga ko waxee noonu lañ ko gisee loolu ko ci waxee sant yàlla rek ñu ñëw sant yàlla bu baax di julli ci nant bi sallallahu alayhi wa ah di gërëm magi magi magi magi réew mi ndax nit ñi dañoo fàtte ne magi démb ñuy gune tey e gooma de nit ñu bari di mu seetaan dañoo fàtte ne magi muy gune tey ma nit ñi dañoo fàtte ne magu démb muy gune tey wax ji ma la wax nii dafa am lu dafa am waxu bàttin la dafa am lu mu dëxuñu ci biir ñépp nangu nañ suñ mag ñi waaye nangu luñ gune tey lu lu njumte la la woon ci magi démb yooyu yëpp ci secret ci xam-xam bu wét ci njub ci dëggu ci ragal yàlla tey mu ci xale yi bu njëkk dangay gis mag mu ne ci daar di jàng fanweeri at du xam dara wala tuuti lay xam léegi dangay gis xale bu ne ci daar fukki at mu peeg mboolem fànn xam-xam yi nekk ci leneen maanaam la mag ma daan wut ci ñeent fukki at doo koy xam tey ci mbaaxu yàlla xale yaa ngi koy am ci diiru fukki at ak juróom su bëree bari ñaata xale yu gis yu am cinq ans mokkal Alxuraan suñ mag ngi nekk barsàq boo xewoon na leen tey jii boo demee Touba boo demee Tivaouane boo demee Medina Baye boo demee Ndiassane foo mën a dem ci kër diine yooyu fekk fa xale bu am juróomi at bu mokkal Alxuraan moom mu mokkal Alxuraan ci juróomi at maam est amoon na loolu ndax yàlla moo wax ñu dem na ko Alxuraan dinaa ko dinaa ko yombalal sa xeet loolu te gis nañ ko léegi nag mboolem may bu yàlla mayoon mag ñi tey mag ñi newtuñ fi guñee fi nekk guñee la ko yàlla may boo yoree xam-xam baa ñis dara wa naan baatin baax na waaye siru gën siru sirru moo gën a wér lépp dama la wax fii ma ne la ñeent fukki fan mbir moo gis mu xew ci jamono ci yàlla noppi na ci lu jiitu ñeent fukki fan ak benn bu xasee mbir ma yàlla bu ca paree rek xam na doomu aadama bu xam mu ngi mel ni làmb ji quarante un jours lañ xamoon ne Eumeu Sène day ma toog fii na leen Eumeu ne ko ay mbokkam ñaanal yàlla ma baamuwaat ko ne Eumeu Sène ne ko ay mbokkam ñaanal yàlla nga wax may la ñoom ñaar ñëpp sax ne ñaanal yàlla su ma yemoon ci ëmm wax gi dafay leer te duma yow dama dama dong laa man ne la gis naa kuñ ci daan jëli bu ñaw te gaaw man ne la gis naa kuñ ci daan ba kanam bi takk suuf noonu la demee bi ma ko waxee nag ci émission bi tudd ma tur waaye bi caméra yi nee naa leen ëmm seen day daan tey anamu ama moo daanu xeetu xam-xam yooyu yàlla subhanahu wa la am na ñu ngi ko xamal lu ñëwagul loolu xamal na la leen rek ko may jaamu yàlla gis nga boo jege ba deewoon ci àll bi jege mag ñi bañ jox la sirru sirri yi billaahi ul kitaab sa diggante yàlla dana set wecc loo bëgg xam-xam ko loolu nag xajuwut yor gàllaaju du jeex nit mën naa yor benn kurus gi doo nga xamee téeméeri per la yàlla di jaamu yàlla digganteem di di fexe digganteem ak suma subhanahu wa taala rafet bu dee ba rafet yàlla moo ko xamal lépp ci alquran la yàlla moo ne su ngeen ma ragalee ma xamal leen waaye léegi nag ragal yàlla nag moom góorgóorlu la rek ñun nag ñu dem ba mbir yu baree bari bari bari bari war a mën a xew ñu mën ko wax maanaam man ngeen gis man man man kenn ngeen gis ma toog di wax ci télé bi waaye ñaata kilifa ñoo ne sama gannaaw ñoo xam ne ñoo formé ci xam-xam ñaata kilifa ne sama gannaaw ñoo xam ne ñoo ma ñoo xam ne lu lu bëri bëri bëri bëri yàlla da ko dogal fekk xam nañ ko bu yàgg lu jur tey muy xam boo déggee fii ci àll bi. day fekk mag moo xam ne benn paa boo xam ne day xëy du am ñaar fukki mu mburu day lekk cere ak base te di jàpp ñàmburam soo ji bu tilib nga gis ko yaakaar du dara ci yàlla te bi barke alquranul karim moom moom moom la yàlla rus yow mi xëy lekk sandis wala lekk dibi wala yow mi xëy dugg sa oto buñ kilimité ci barke waa ju baax jooju nekk ci àll ba barkeem yow ci nga amee loolu parce que yàlla bokkul ak nit ñi fu ñu ko fekk rek lay génn baax ku mas gént ne dafa bëgg gis Seexoon Fuuti Taal radiyallaahu anhu benn jigéen la bu ñu ko bëggee gis dem ci benn sëriñ sëriñ bi ne ko saraxel juróom-ñaar ndeba laax da nga gis Seexoon Fuuti Taal bi mu demee laax xëy suba teel xoote saraxu laax xar yi daw ñëw di lekk si benn xale bu sol tulip mu ne ko dëppal bul tilma sama kar yu dëppal ci biti xale bi retourné dem bi mu demee ab biir mu toog gisu Seexoon Fuuti Taal mu jël ci sëriñ bi ne ko man dangaa waxoon su ma saraxee nangam gis sax fu ci taal saraxee naa jub naa defe laax gisuma ko mu ne ko ah kañ gis nga yaa ko xàmmeewul mu ne ko bi nga saraxee laax xale bi ñëwoon sol lu tilim di siit ak tilim ndax moom li mu gis mooy tilim la moom daal si tilim la gis mu ne ko kooku mu ne ko dëppal ak si tilimaay koo koy sax fu ci taal lépp xale bi ndaw si rëccu lu tax mu def lu tax mu def loolu loolu yëpp day dellu ci nit ñi dañu bëgg jël ñëpp sëriñ sëpp multiplier leen par zéro d'accorduma ko gàtt xam-xam weesu weesu loolu ñàkk intelligent weesu loolu ku génn si écran bi wax na multiplier ko par zéro ay sëñ bi heure gën a ko rëy te dama la wax ne la nee naa la Coupe d'Afrique bi ñëwut fi ama seen daanu na xam na yeneen mbir yu xew yoo xam ne mu ci kanam war a ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te dañu teg naa ko dañuy des ci làmb ji bu ma nee làmb ji euh, fuñ ko foogut woon surtout Eumeu Sène bi nga deltiwaat delsiwaat ne ay mbokkam nañ ko ñaanal ko ñaanal mooy ëmm mm-hmm. bi ñu ko daanee ak léegi def na juróom benn weer Eumeu Sène bi ko Modou Lo daan léegi def na juróom benn weer te ni mu daanoo nii mbër mu ko daanoo en général doo gaaw amaat ndam doo gaaw a bëreewaat ndax dëpp la mooy lu jot takk <laughs> lu jot takk la boo xoolee guy gi ma la waxoon ne frein woon nag wax nan nag wa daanoo noonu la ëmma daanoo te boo xoolee ni guy di daanoo ak ni ëmma daanoo niroo de moom ay mbirum dafa fay non seulement am na def ba pare mais def ci jëlee yàqu li ko defaraat nag leneen la xaju na liggéeyaat bu baax a baax a baax a baax su bëggee taxawaat ci làmb ji bëri. mais carrière yàlla yàlla yàlla xam carrière am jeexagul de waaye léeg mbër yàqu yàqu ko xam ne bu jëlee yaaw a jaas yaaw a jal daan ko gis nga ab yàqu yàqu ci doomu aadama moo fa nga yegg ba yàqu doo xam. làmb ji démb dëgg dëgg dëgg mystique feeñu ci. làmb ji amul mystique ñoom ñaar ñii démb billaahi wal kitaabi fi mu toog fii di ko setaan bi bi Modou Lo dugusee ay 15 heures 16 heures naan leen Modou loo daan na waa ji même bu dara sax lu sit maa xel lu xet nangu Modou Lo daan daan na Eumeu bu fekkee amoo xam-xam sax boo ko laajee ñoom bi kay mbéy ñooñu buñ la waxee ñoom ni ñu jàngatee làmb Modou Lo bi mu duggee. lañ rafet njortu ne Modou Lo day daan Eumeu Sène gis nga mystique boo bu la yàlla mayee basira maanaam gis-gis mbir mu ne boo ko analyser rek daf la jox la la la nga soxla. waaw gis nga ku repp ku repp day am fit com bi nit kuy fëtti fëtti ne day am fit. dafa repp ku repp foo ko fekk day am fit ama bi muy cëpp cëpp yëpp même boo ko laajee ñoom Bégaay Mbaye ñi seetaan lamb ñi nga xam ne ay ay ay jànkat lamb lañ ñoom xaalis ñooñu dañ lay wax ne la ëmma ni mu yàkkantoon lamb ji naka jekk dafa cuune wartoon dafa noonu mu loo dal nit daal da dal boo dalee daal lu bari bu nga jot si dafay yomb nga ne da dañu dellusiwaat ndax yi nga fi wax yëpp gis nañ ko ci côté Wally Seck dama fiy dellusiwaat foofu demoon nga fi ba ay mbokkam nañ ko ñaanal foofu loo fi nga xam wax lu ndaw def ko lu rëy man Wally bëgguma di ko tudd parce que joti di ko tudd ndax. man li ma si jublu ci wax ko mooy dimbale ko laajoo ko biir ngir yàlla waaye sëñ bi ku taxaw fii na la ay mbokkam dañ ko ñaanal yàlla ko bëgg na la lu jàmm ko bëgg na la bëgg na la ak yokkute bëgg na sa teranga waaye léegi moo taxaw fii ne Wally sekk nag ay mbokkam ñaanal yàlla ñu ngi demoo lu ñu ma koy wax waxuma lu ñaaw di nañ ko ñaanal yàlla ndax coow li ma gis mu song ko nii rawaanam xàttanul ko. te dama lay wax encore une fois laa lay waxaat yoon li si kam loolu gët man xam naa ne mu ngi ñaanu sax ci cooli pour mu fay man xam naa xam naa ne moom mu ngi ñaanu yàlla ci cooli ko toppoon fay man xam naa ko waaye waaye dama ne la lii tax cooli fay dëgg dëgg dëgg sëriñ si ku yàlla xamal bëriwut waaw te nag fay cooli bokkut ak coow li am ba pare xam lu jóg war a ñëw sama kaw nga fànqal ma ko ñaari ñaari mbir la coow laa ngi ñëw sama kaw nañ ko fànq bu dee ci ak fayal ma coow yi nii dañ noppi waaye lay ñëw moom moom anam moom noo koy def da nga bàyyi mu ñëw teg ci sa kaw man ne lii la wax ci wàll li ma wax daal mooy liñ koy wax man awma preuve tuuma laa ko tuddee ndax yàlla bëggut ku xas ab gor moom doomi jàmbur la man ma moom ñooyem doomu jàmbur lañ te man moom ñu bokk xem ci kanamu yàlla man lan laa ko gënee moom ba war ko mën a taxaw juge ko juge ma ko accusé laa ko tuddee waaye dama ne gannaaw bu accusation ay ba pare laa wax coow ak borom gémmiñ ñi nga xam ne lu seen gémmiñ wax mu dal nit dama ci gis yoo xam ne nii fànq na départ na jëm ci koom te dina ko dal waaw na ñàllu ndax man sa war na maa ñaanlu ñëpp war a ñaanlu waaye na jëmuñ toll nii moom moo ma gën a nekk ci ci guta foofu laa ñëw Serigne Moustapha Dramé en tant que Serigne di koo xam ne da ngay ñaan waxoon wax ji ci moom ëpp na ko lees ndax moom ñëw ci yow ay nitam ñoo ay bi ma waxee wax ji dama ne leen waaye bëggu mu ñëw na toog këram ma toog sama kër te loolu lay confirmé waxuma wax ji man pour moom mu ñëw jox ma un man li ma neex ci wax ji li ma neex ci wax ji mooy ma wax ko bu ëllëgee mu am ma desuwaat toog mais maa waxoon nan amaat na loolu moo ma gënal man un milliard su ma waxee nag ngir mu jox ma xaalis mën nañoo jox ma un suba ñu ne waa ji fen na nit ñi yàkkamti nañ nga wax ba bu dëgg ñu dagg ko def ko ci internet bi comme ni nga defee yenn sëriñ ci ci Coupe bi ak ci làmb ji loolu maa ngi ñaan yàlla yéen yàlla musal ma ci te nag yàlla mën na ma ci musal lu tax mooy. ki may déglu amaana moom daf may déglu xol man na waxee xel ak yéene boo xam ne ci doomu aadama lay jóge bëgg dellu ci doomu aadama ngir mu am ak yëwén ak rafetal man boobu yéene laa waxee xam na nag mbokkam bu nu ma man duma yàlla bay rey ma ne ko yenn yàlla musal ci baatu rey yàlla lan lañu ci yàlla musal ñu mën a rey ñu daal lañ mën ñaan yàlla lépp loo xam ne ne xay la ñu ñaan yàlla mu nekk ak yiw ndax yàlla moo ne ñëpp la ko wax wax man fayu ma xol yéen lay fay yàlla ne la fayu jëf yéen lay fay waaye nit dana toog am yéenu bon ci doomu aadama toog di xaar résultat bon sax moom xam yéenu bon ba yàlla da ko yéenu bon bi jox waaje safaan wa kon lépp lu waaye yéene si doomu aadama na nekk lu rafet waaye nag moom waari sekk dama koy waxaat de ay mbokkam nañ ko ñaanal yàlla coow li jëm jógee fële jëm ci moom rawaanu waale xat na ko moom moom ay mbokkam nañ ne moom gëmul sëriñ moom waale sekk gëmul sëriñ waaw acca bisimilah rahmaani rahim waaw dana gëm sëriñ ndax dana gëm sëriñ naq naqat dana gëm sëriñ ndax sëriñ dana ko lu mu teg bët du ko di mukk